mësul am Sénégal xam ngeen yàlla su atte moo gën atte Macky Sall ak gouvernement añaane woon pour ma wàcc aéroport Léopold Sédar Senghor ndax teg lu ma tax waaye nag yàlla nee na ci alxuraan alayhi sallahu bi yàlla mi ngi ñuy àtte ma bëgg leen nag wax parce que du ma sore ci leneen bu dee alalu réew bu Macky Sall jël keroog ba ñu ko ne waaw sa déclaration de patrimoine da nga ci def ni juróom-ñaari milliards yi si mu ne président war na ma ko may. waaye def benn projet ci Amérique Amérique xaalis bi mu jël ak benn ay fan ngeen jógee eh, mu daal di daal moom foofu daal bu ma moom dana am problème mu jàpp ko def ko xali Karim Wade def ko Khalifa Sall def ko nag bi mu defee bi mu defee parrainage ñi ci desoon ñooñu itam mu écarté leen parrainage parrainage dama bëgg ngeen déglu ba ngeen mën a yóbbaale parrainage bi Macky Sall def ci amul benn ci àdduna dañu moo am na France waaye cinq cent élus am ñu séeréer juróomi téeméer nga juróom benn fukki junni ak ñaar ak lu topp li ñu mel jiwul ay parents ba tey waaye li mu ci def ñaar fukki ak juróom ñaar yi ci desoon jël ba ci loo xam ne dañu téeméeri candidat maanaam mu mel na daf leen a rangale course la mu egg numéro vingt-sept li ñuy wax sedd la gaynde ah ñu ne moom moo njëkk a egsi ñëpp démb la ñu ne boo nekkee candidat fichier électoral bi ci nga war a tànn juróom-benn fukki euh, électeur ak juróom-ñaar ak lu topp en fait c'est entre 0,8 pour cent et 1 pour cent. comme Macky ñu ñu yokk ci tuub loo mënul am maanaam bu fekkee ci moom a jëkk egsi bu tànnee ba pare man man naa tànn leneen waaye mënuma tànn ci ñu nga xam moom tànn na xam nga bu ko defee ñaar fukk ak juróom ay màkk ñi mooy mooy numéro un moom mën naa tànn ci fichier électoral bi waxtaan yow mën ngaa tànn ci loolu. numéro 2 bi nga ñëw la ñu ne la mën ngaa tànn ci fichier citoyen yi ma ko tànn ba pare yow mënoo leen tànn. bu gisee nii am na ñoo xam ni ñu ngi ci sa liste nekk ci liste mag bi ñu ne la yow. ñi ci sa liste dañu nga leen di dindi te demal nga wuti àll nga remplacé leen li ñu ko topp noonu ba ki nga xam ne moo ci mujj fukk ak juróom-ñaar le pauvre le pauvre candidat ñu ne xew fichier électoral bi ngay tànn mënoo tànn ci ñi nga xam ni ñi la jiitu ñoom tànn nañu la waaw mooy mooy lan mooy ban démocratie alors ñu jóge ci loolu ñu jóge ci loolu mu indi ay affaires yoo xam ni kenn xamul lu mu jógee euh, parrainage bu mu def daf ko def pour moom pour boppam ñu ngi jëm élection moom mu décrété ni juróom benn rek ñoo ciy des suñuy dem élection mais loolu boo boo démocratie mooy lan juróom juróom rek daal ñooy mën a dem élection ah juróom yi moom tànn ma boppam ba pare mu des ñen ñeent moom moo leen tax naka nga mën ñëw ngay dem élection nga tànn mooy demal ci législative yi ministre de l'intérieur bi ñu di ko joxe parce que jeune jeune yi la te xam nañ ni jeunes yi du ñu wotal Macky Sall waaw bii élection mooy ban élection ci àddina ñaareel bi alors dama bëgg ñi nga xam ne juróom yooyu maag ci tànn na leen ba ñu am possibilité dem élection ñooñu laa bëgg a waxtaanal parce que vraiment ñëpp xam ne ni Macky bu demee élection moom mooy proclamé boppam ni mooy gagné waaw loolu boo ko xamee ba pare looy wut élection yow xam nga ni du ñu du le 24 du ñu ni mukk du ñu ci des sax wala ñu Sonko wala ñu keneen Macky Sall la defar la affaire am ba pare sëriñ bi comme lu loolu nga bàyyi ko am élection nga doon déglu loolu alors man li ma la wax moo di gis ngeen ci élection législative bi bu ngeen boole waa opposition bi ñun baaxaloon nañu Macky Sall waaye nag dafa am ñoo xam ne dañoo def erreur xam nga bu ñu jëmee ci lu demee nii xam nañu bari dañuy aveugle maanaam dañuy gumba alors ñooñu ñu defoon ba mën nañoo ànd ci maanaam ci député yi loolu ministre bi bu ñu àndoon assemblée bi ñoo koy moom te réew bu yor assemblée yaa koy yaa koy dirigé am na méthode yoo xam ne moom mooy employé renverser gouvernement bi bu nekk alors donc ñaareel bi déglu leen bu baax déglu leen bi xam nga dañu ni soixante-sept mille bureau de vote ma am à peu près de vote yow mi nga xam yaa ngi yaa ngi wote Macky Sall xamuloo sax nombre de bureau la parce que kenn xamul fi ma taxaw xamul eh, ñun ñu liggéey yàlla ñu dimbale ba am ñu nekk ministère de l'intérieur di patriote jox na ay information Macky Sall ñaari gis la yoon ñaari liste benn liste bi moom lay won ñu li waaye boo ko defee ci ordinateur da ngay tàppe rek jiitu lu la neex liste boobu nga xam ne moom la bëgg ñu woote ji mu dugal fi à peu près trois cent xam ne kenn xamul alors yow waaye yow boo xamee loolu ba pare nga ne da ngay leen di moom moom am na avance déjà 317 540 waaye vraiment sëñ bi loolu bu amee ngeen bàyyi ko élection alors léegi fi ñuy war a wote moom la ñu carte électorale ba fii nii kenn xamul place yi ñu war a wote alors ah, léegi bi ñu inventé moo di yow bu ñu nee viol war a wote ñu gis ko ci sa xaar bés wote bu ba ñëwee dina ah waaye bu géej géej waaye war a wote wala mbuur wala feneen sànni électeur opposition yi loolu boo ko gisee tam ngir booy dem ba yéeg ci réseau boobu nga naan damay woote ñu looy woote woote amu fi lii Macky Sall di def bu mu wootee donc loolu yëpp boo ko boolee Macky Sall dafa yàpp Sénégal yi parce que nag dafa defe ni moo ñu ëpp xel waaye amul xel parce que li muy truqué yëpp ñun comprendre lu xam nga sawaay ca Kajoor fa lu daan li wax ni boo sàccee bëgg a maa nga dugg saxaar bëgg a daw xamal ni waaye nga sa kaw dina gis ba ngir daa fees alors léegi léegi élection yi Macky Sall ak i lii tam li ñu ci lekk ci xaalis kenn xamul nu mu toll bu fekkee ni li ma wax nag neexu ko na ma yóbbu tribunal tribunal yaa ngi na ma yóbbu Abdoulaye Wade li nga wax amul yéen gis ngeen Macky Sall fi mu jëlee alal ju bare ji mu yor benn premier ministre bu nekk da ngay am fonds ci Casamance pour régler problème Casamance muy 60 milliards premier ministre ci Sénégal depuis Senghor ak depuis Abdou Diouf 60 milliards nga mu koy jël ah bu honnêteté ça va mais boo natul da ngay ne waay ah Samba Sarr Samba Diop day moom na ma mën a yóbbu ci euh, <laughs> waajal nu mu tudd si indépendance bi nga daal di bind rek jox naa ko 5 millions wala 2 millions 3 nag kenn amul droit woon si jëm assemblée moo xam man en tant que président de la république mënuma jox dara ko koo xool Macky foofu la jële lenn ci xaalisam ah, bi ci des code des marchés maanaam lépp loo xam ne état moo koy liggéeyal code des marchés bi fi amoon dafa wax marché bu nekk dañu war a def appel d'offre maanaam ñi li kat moom la état bi bëgg a liggéey ku ko mën a liggéey ñu biñ la dossier jox nga wax ñaata nga koy liggéey ci ñaata temps nga koy defal loolu moo ko démarché am na benn cas rek boo xam ni mën ngaa bañ a def appel d'offre moo di bu fekkee ni li nga bëgg benn benn benn rek moo koy wax mënul def appel d'offre parce li nga mën a def moo di kooku njëg gu mu la nga seet ndax jaadu la wala jaadu nga seet ko ci internet wala nga seet ko ci réew nga waaye Macky Sall def ci code de marché xam nga bu ñu ni woon sax ah dañu bëgg daal liggéey bi gaaw marché boo xam ni ndëgam weesuwul nangam weesuwul nangam kooku mën naa am gré à gré maanaam waaye moom daf ko renversé dafa ni marché boo xam ni ci zéro franc ba cinquante milliards boobu foog mu am appel d'offres waaye lu ëpp cinquante milliards soxlu da ngay décider waaye ki ngay ngeen ngeen de njub amul fenn ci àddina amul fenn fii ci Sénégal la parce que dafa ko renversé ni mu renversé principe bu CREI yi maanaam yow la ñu yaa war a prouver la accusé defoo alors que tribunal procureur moo naan da wax lii da ngaa def lii ay problème waaye ñu ko tudd fii nii ah pare pare pare gouverneur bu ne daal yow dégg naa da nga benn américain pour jaay ci góorlu ñu ñu accusé la ci loolu ñoom kat ñu ni ay kay ñu la jaay yow dañu naan dégg nañu rek jaay nga pare léegi pour wéru jaayoo ko xam loolu kenn mënu ko ci droit moom lay wax la preuve négative amul alors donc nii la Macky Sall Sénégal ñu mu dirige Sénégal am na lu ci bokk moom famille am moom leen ci pétrole def leen feneen ñuy tëb ñuy tibb rek di xam nga dama créé woon dama créé woon benn caisse boo xam ne dañu ko caisse de dépôt et consignation maa ko bind maa ko créé def ci ni ku notaire bu nit ñëwee ne dama bëgg a jënd kër bi jox la xaalis mënoo ko garder lu juróom-benn weer juróom-benn weer du koy déposé si kër bi ñu ne compagnie d'électricité bi waaye ngi ñëw loué dafa bëgg courant ngeen ci biir dafa war joxe caution nga joxe caution waaye jooju bu xaalis boobu la da nga koy yóbbu ci caisse de dépôt et li moo tax caisse de dépôt et consignation nga xam ne dama ko defar mosul trois ou quatre mois mu am 56 milliards juróom-benn fukki milliards ak juróom-benn bi Macky ñëwee journaliste laaj ko ñu ne waaye day laa nga bëgg a jox keesu safara mu ne du ma jox xam nga ñëpp di ko jox kees gi euh, li ci nekkoon war naa toll ci ñett fukki milliards ak lu topp moom mu def ko comme banque di leble di maye di le xam nga vraiment lefe nag la ko ëpp dégg naa sax rek moo dama ñëw pour vérifier ko naa kees gi <laughs> foo xam ni dañu dañu fay déposé mun war lu mën a fay est-ce que magasin boo xam ni da nga ñëw dénk fa sa lal sa wurus voilà ni dafa fay moom xëy na ko bàyyi foofu ba borom ñëw jël affaire am dem yoonam alors affaire yi bare trop pétrole bi ñu mu ci def pétrole bi nga xam ne bi ñu ko découvrir yàgg man de demoon naa ba gis benn société bu ñëw ni la ko soxla ñu signé sax parce que foofu la commencé signé mu ne dama bëgg pétrole bi nañu ko d'accord defal ñu ah benn doofa wax ñu looy nar a fay Aliou Sall ak benn waay bi ñëw Franck Timis ma euh, Aliou Sall dafa créer benn société ci Hong Kong société boobu créer benn société île Caïman île Caïman société île Caïman yi créer benn société ci Sénégal société cekat société boobu daal yi ni Aliou Sall demal Sénégal nga créé ma ko société pétrole te société bu nekk Aliou Sall Aliou Sall mooy wax ak boppam société bu nekk monsieur Aliou Sall administrateur unique actionnaire unique moom mooy wax monsieur Aliou Sall demal nga créé ma <laughs> société non mais Ce sont des bannis. alors Aliou Sall keroog bokk bay déglu mu jotee permis bi mu daal di société def société ak benn su benn américain boo xam ne ci Sénégal 10 pour cent la fay permis boobu la ñu ko jaay ci 4 milliards te seen bureau bi ñu soog dugg ñu milliards ba ñu ko ba ñu ko defee ci bourse ñun ñu gis ko mu daal di ko jaay action yi ñu jënd 4 milliards 4 milliards yoo xam ne génnoo demoo ji ko dañu bind nag et société offshore de Saint-Louis société offshore non gisement wu Saint-Louis gisement bu Kayar nekkete li fa ne ci pétrole ku bokkul kii quantité bu doy waar action yi daal mu jaay encaissé sa encaissé xaw ma combien la mu jaay pétrole dafa bokk ci li ressource naturelle loolu rek la réew am man franc turisme moom homme dafay ñëw ñu ne jox di yow nga ah, jox nga def ko milliardaire ci diir bu gàtt loolu mooy li nga xam ni euh, li ñu defoon ma ñoo ànd ci législative maanaam ci député yi loolu musiba la bu ñu àndoon assemblée bi ñoo koy moom te réew bu yor assemblée yaa koy yaa koy dirigé am na méthode yoo xam ne moom mooy employé renverser gouvernement bi bu ñu nekk alors donc ñaareel bi déglu leen bu baax de. déglu leen tuuti waay. ñaareel bi. xam nga dañu ni soixante-sept mille bureau de vote ma am à peu près yow mi nga xam yaa ngi yaa ngi wote Macky Sall xamuloo sax nombre de bureau parce que kenn xamul li ma taxaw eh, ñun ñu liggéey yàlla ñu dimbale am ñu nekk ministère de l' intérieur du jox na ay information Macky Sall ñaari liste la yor ñaari liste benn liste bi moom lay won ñu nii waaye boo ko defee ci ordinateur da ngay tàppe rek di dugal loo neex nga liste boobu nga xam ne moom la bëgg ñu woote ji mu dugal fii à peu près dix sept mille cinq cent quarante électeurs yoo xam ne kenn xamul alors yow waaye déglu leen ma rek ndax yow boo xamee loolu ba pare nga ne da ngay liggéey ak moom am na avance déjà trois cent dix-sept mille cinq cent quarante waaye vraiment sëriñ bi loolu bu amee ngeen bàyyi ko élection alors léegi fi war a wote moom la ñuy wax carte électorale ba fii mu ne kenn xamul place yi war a wote alors léegi li ñu inventé moo di yow bu ñu nee bureau war a wote ñu gis ko ci sa carte bés wote bu ba ñëwee dina ah waaye bu génnee génne waaye nga war a wote électeurs yi opposition yi loolu boo ko gisee tam ngir yàlla booy dem di liggéeyal sa bopp nga naan damay woote ñoom looy woote woote amu fi lii Macky Sall di def du mu woote donc loolu yëpp boo ko boolee euh, Macky Sall dafa yàpp Sénégal yi parce que nag dafa defe ni moo nu ëpp xel waaye amul xel parce que li muy truqué yëpp ñun comprendre lu xam nga sawaay ca Kajoor fa nu jóg daan li wax ni boo sàccee bëgg a raw maa nga dugg saxaar bëgg a daw xamal ni waaye nga taxaw Dilekçe son derece affetmez. Alors, léegi léegi élection yi Macky Sall ak yi itam li ñu ci lekk ci xaalis kenn xamul nu mu bu fekkee ni li ma wax neexu ko na ma yóbbu tribunal tribunal yaa ngi na ma yóbbu Abdoulaye Wade li nga wax amul yéen gis ngeen Macky Sall fu mu jëlee alal ju bari ju mu yor benn premier ministre bu nekk dangay am fonds ci Casamance pour régler problème Casamance muy 60 milliards premier ministre ci Sénégal depuis Senghor ak depuis Abdou Diouf 60 milliards. nga ñu koy yéexal ah boo honnêté ça va mais boo honnêtul da ngay di waay ah, Samba Sarr Samba Diop de moom nee na dafa mën a ci euh, <coughs> waajal nu mu tudd si indépendance bi nga daal di bind rek naa ko 5 millions wala 2 millions 3 millions. fond boobu nag kenn amul droit woolu si jëm assemblée moo xam man en tant que président de la république mënu ma jox dara mosuma koo xool mosuma koo toppatoo Macky foofu la jëlee lenn ci xaalisam bi euh, ci des code des marchés maanaam lépp loo xam ne état moo koy liggéeyal code de marché bi fi amoon dafa wax ni marché bu nekk dañu war a def appel d'offre maanaam ni lii kat moom la état bi bëgg a liggéey ku ko mën a liggéey ñu bindal dossier nga wax ñaata lañ koy liggéey ci ñaata temps koy defal loolu moom code de marché am na benn cas rek boo xam ni mën ngaa bañ a appel d'offre moo di bu fekkee ni li nga bëgg benn benn benn nit benn société rek moo ko yor def appel d'offre parce que ñu des mënuñu li nga mën a def moo di kooku njëggu mi la yor nga seet ndax jaadu la wala jaadu nga seet ko internet wala nga seet ko ci yi nga xam ne la waaye Macky Sall def ci code des marchés xam nga bu ñu ni woon sax ah, dañu bëgg daal liggéey bi gaaw marché boo xam ni njëgam weesuwul nangam weesuwul nangam kooku mën naa am gré à gré maanaam déggu waaye moom daf ko rawee sax dafa ni marché boo xam ni fii ci zéro franc ba cinquante milliards boobu foog mu am appel waaye lu ëpp cinquante milliards soxlu da ngay décider waaye ki ngay ngeen bind de amul fenn ci àddina amul fenn fii rek Sénégal la parce que daf ko renversé ni mu renversé principe bu CREI maanaam yow la ñu la yaa war a prouver ni li ñu la defoo alors que tribunal procureur moo naan da ngaa sàcc da ngaa wax lii da ngaa def lii indi ay problème waaye nga tënd fii nii pare pare pare bu ne daal yow dégg naa da nga suivi benn américain pour jaay ci góor la ñu accusé la ci loolu ñoom kat ñu ngi ay kay ñu la jaay nga naan dégg nañu rek jaay nga pare léegi prouvé nu jaayoo ko xam ne loolu kenn mënu ci droit moom lay wax la preuve négative amul alors donc nii la Macky Sall dirige Sénégal ñu mu dirige Sénégal am na lu ci bokk moo famille am rek moom lay toppatoo def leen nga damaa créé woon damaa créé woon benn caisse boo xam ne ko wax de dépôt et consignation maa ko bind maa notaire bu nit ñëwee ne damaa bëgg a jënd kër bi jox la xaalis mënoo ko garder lu ëpp juróom-benn weer juróom-benn weer du koy déposé si kees bi ñu ne waaye ngi ñëw loué dafa bëgg courant ñeent ci biir war a joxe caution nga joxe caution waa jooju bu demee xaalis boobu la da nga koy yóbbu ci caisse de dépôt et consignation li moo tax caisse de dépôt et consignation dama ko defar motul mu am cinquante six milliards juróom-benn fukki milliards ak juróom-benn bi Macky ñëwee journaliste laaj ko ñu ngi koy dégg naa a mu ne du ma ko ñëpp di ko déglu mu yëkkati jox ma ko te frère am bi muy jot kees gi li ci nekkoon war naa toll ci juróom-ñett fukki milliards ak lu moom nag mu def ko comme banque di leble di maye di xam nga vraiment bi defe nag la ko ëpp dégg naa sax moo ma ñëw pour vérifier ko dégg naa kees gi sax léegi dafa fay foo xam ni ki dañu dañu fay déposé mun warul mën a fay est-ce que magasin boo xam ni da nga ñëw dénk fa sa laal sa wurus voilà mun loo xëy ni dafa fay moom kañ la ko bàyyi foofu ba borom ñëw jël affaire am dem yoonam alors affaire yi bare trop pétrole bi ñu mu ci def pétrole bi nga xam ne bi ñu ko découvrir la yàgg na man de demoon naa ba gis benn société bu ñoom li la ko soxla ñu signé sax parce que foofu la commencé signé mu ne dama bëgg pétrole bi nga ne ko d'accord defal ñu ah benn doofa wax ñu looy nar a mais Macky bi mu ñëwee mu jël ko jox ko benn société moo xam ni fayal affaire misaal man maa yóbbu misaal tribunal parce que dafa si am ba pare ndekete ba muy see li mu bëggoon rek moo di société bi mu am mu gën a am valeur moom mu nekk presque le plus grand pétrolier du monde parce que am na gisement Sénégal mu yor ba mu defee loolu Mittal fekk ci ñenoon ak Sénégal mu ignore ñu topp tootul sax suñu affaire xaw ma sax pendant quatre ans dégguma ko gisuma ko Mohamed Bourgi avocat brillant jeune nekk Paris nga xam ne sama sama man maa ko yoroon comme stagiaire maa ko moom nu defar dossier ñu yóbbu métal euh, tribunal ci Paris tribunal bi génne benn atte ndax suñu mel boobu ñaari atte lay génne day génne atte ñi ku tooñ ba pare nag mu génne beneen atte kii tooñ war naa fay nangam alors parce que jot bi ñu ngay defu tribunal bi nii Mittal mooy responsable rupture du contrat avec le Sénégal Misal war na réparer tous les préjudices du Sénégal ah Misal yi nag tribunal bi nii Sénégal yéen Misal dem leen ngeen def seen conclusion ci li nga xam ni moom la ñu war a fay Sénégal pour ñu àtte ko. suñu avocat jël benn expert bu ñu wax euh, Gustavo Colorado. mu def rapport ni préjudice su Sénégal quatre milliards quatre mille six cent milliards de dollars la xam nga loolu mooy ñaata deux mille trois cent millions milliards de francs CFA deux mille trois cent milliards de francs CFA mu ne loolu mooy préjudice du Sénégal léegi dem leen ngeen ngeen conclusion indi Mittal di wax ni affaire bi bu ñu ko àttee moom dina fay parce ko mën a mu daal di gis Macky ak Aliou Ndiaye mu mu mu mu gis Macky ak Aliou ni Macky daal. nañu fexe rek ba procès bi daal bu mu am ah Macky Sall ak misaal ñu léegi Sénégal dañu koy jox rek cent cinquante millions de dollars mooy juróom-ñaar milliards juróom ñu signé loolu madame Gassama nekk agent judiciaire de l'État keroog ba ñu ko nee signé mu ne du ma moom signé wu ko de te moom bu ko signé wu leen fonctionnaire hiérarchie rek mën a signé waaye ministre moo ko signé manqué ni Aliou Ndiaye signé Aliou Ndiaye signé donc bataaxal ba ñu def foofu amul wala droit waaw na nga mën yow nga xam ni expert bi nee na ñaari ñaari junni ak juróom milliard nga nga mën a yaakaar loolu wala lu ko jege nga dem transiter ci cent cinquante millions de dollars mu nekk scandale dans le milieu judiciaire ma seet compte rendu conseil d'administration vital mu am bés boo xam ne conseil Sénégal on a deux cent cinquante milliards ñu réglé ko waaye dañoo dañoo ko soixante quinze milliards alors que dañu dañu si woon ni danañu dégager deux cent cinquante millions de milliards de euros alors léegi. ministre des finances Amadou war indi Sénégal juróom ñaar fukki milliards juróom waaw yow yaa ngi juróom ñaar fukki milliards ak juróom mu bu bare parce que procès dafa yàgg euh, tey sama kenn xamul yi procès bi ñu gagné ba pare ñu ñu mu daal di nii mu war a yónni waaye mu gis président bu defee budget ba pare bu beneen xaalis jógee feneen te mu am budget ñu war ko ba pare dañuy def benn loi ñëw ci député yi ñu ne ñun kat am nañu xaalis bi député yi décidé naka la ñu koy donc mu def euh, loi de finances du xaar 5 wax ni milliards yi ak juróom dana ko traité ci loi de finance générale de 2015. convivialité xaalis yi daal di jaxasoo après su ma demee lu jëm ci xaalis yi. bu ngeen ko fu may dem déedéet alors léegi benn chef de danse téléphone ni ma voilà Macky def ma woo bëgg ma dugal leen ñoom ñaar ma bëgg ñu dugal leen parce que loolu may sama wàllu góor ma ne ko d'accord mu ne ma kon nag yaa ngi Paris da ngay suma capital ma dugalal ci suma avion ñu dem Sénégal boo mag ci ngeen toog waxtaan ma ne ko déedéet man yow sa avion du ma ci dugg man bu ma jógee fii Dakar laa jëm directement soo bëggee nag yow nga ñëw Dakar la waxtaan waaye li ma leen xamal man du ma dem Paris man Ablaye Wade ma jóg fii di leen diir naan damay waxtaan ak Macky Sall ma ne ko nag boo bëggee sa ambassade sa ambassade yow man lañ waaye man du ma dem pale foofu la ñu toll léegi nag tertu bi ngeen ma tertu ci élection yoo xam ne ñëpp xam ne ni Macky pourcentage am am na ko ba pare ñenn ñi nee nañu cinquante cinq pour cent lay jox boppam ñeneen ñi soixante cinq pour cent waaye boo xamee ni kii def na lii ba pare bu lu liggéey sa bopp loolu fay wuti par contre li ma leen proposé ñoom dama leen nan ànd nekk benn jëlee fi Macky Sall bu ñu bu demee bu demee bu fekkante ni léegi dem na xam nga buy ne na wala daw na ñu ngi def benn commission nationale ñëpp nekk ci góor jigéen société ONG yi ñu ñoo koy composé ñu defaraat yeneen élection defaraat beneen code électoral li ci manqué yokk yokk lu bon yëpp ñu dindi ñu def élection normale comme ni ñu ci temps Abdou Diouf Abdou Diouf dafa wóor NDI National Democratic Institute du Parti démocrate américain ñu ñëw ñu ñu seq taabal yi def benn code boo xam ni dañ cee d' accord man maa représentant opposition bi d' accord naa ci ak lu ñu d' accord ci code boobu code boobu ba ñu ko jël adopté ba léegi mat na vingt cinq ans ñaar fukki at ak juróom code boobu code boobu foole na ñaar foole na ñu foole na ma kon nag xanaa kon bu baax la Macky nag moom ñëw indi ay parrainage affaire taxan yooyu donc man li may proposé li may proposé moo di nañ génn Macky Sall ñu defaraat élection démocratique koo xam ni kii réew mi yow la tànn rek baax na waaye nag am nañu ci leader yi ñoo xam ne seet si nañu ma fan yi ba nu waxtaanee ma seet si ñi ma seet see gum yëpp daal d'accord nañu ak man fi dama leen proposé dama bind benn bataaxal ma def ci programme d'action muy ñetti période bu njëkk ba mooy fii ba le mooy le 24 li ci des moo di après le 24. lépp lu mu war a def mën nañu ko proposé leen ñoom ministère la ko ñoo ngi koy seet nag pour améliorer ko yokk ci nag seen xalaat ñu àndal ci ko. loolu ma bëgg leen wax rek li ci am solo ci loolu li ci am solo moo di dès maintenant dañu commencé def ay meeting ay marche ay meeting déglu leen ma rek ay meeting ak marche partout au Sénégal danoo créé benn kuréel boo xam ne alliance lañ ko tudd waaw alliance euh, alliance nationale stratégique pour une alternance immédiate. alors donc fii ak le 23. danañu yónnee ñoo xam ne dañuy doon des commissaires fépp foo xam ne bureau de vote la commissaire yi danañu fa dem réunir militant parti ñu dem kër gouverneur dem kër préfet dem ci commissaire de police dem ci euh, chef de brigade de la gendarmerie benn pétition gouverneur ak préfet ñi dem. danoo bëgg seen façon ngeen xamal ñu ko ñun d' accord ci élection yi muy d' accord duñ ci d' accord tey duñ ci d' ci li ñu nekk nag du ñu fi jox tant que joxoonu réponse boo ñu joxee réponse nag ñu jéem xam na nan la ñuy def bu ñu demee ma ngeen demee ci commissaire de bi ak brigade C'est normal, police ak gendarmerie ñu ngi veiller sur le maintien de l'ordre lu baax la ci réew mi waaye nag li nga xam daal bu mu ko nangu moo ni comme le président Wade ba mu ñëwee dafay fekk loi yoo xam ni bala ngay réunir wala bala ngay marché ngay am permission président Wade indi fi loi boo xam soxlawul permission danga koy déclaré rek te soo ko déclaré préfet ak gouverneur ak gendarmerie dañu laa war a encadré pour ñeneen bañ a jëm jóge feneen ñëw di leen troublé waaye ñoom ñu tourné loi complètement da di interdire rek boo leen damay def marche ñu interdire boo ñëwee meeting ñu introduire alors xale yi nag xale yi dem ba maar ñi marche bi interdire na ko mais doonanu la leen jàpp ñu ràpp ci kaso bi cest à ma liggéeyoon ak ñu dañ ko renversé dans la pratique alors ma ne gendarme yi ak policier dama leen di ñaan def leen seen liggéey ku ngeen gis muy kaas wala muy teg wala muy dóor jàppale ko man ñoom ñu ku ko def man du ma la mën a supporté waaye nag peuple boo xam ne dafa dafa bëgg a def marche wala dafa bëgg a def meeting te loolu nekk ci constitution bi. préfet bi interview ko benn yoon ñaari yoon ñetti yoon ñooñu révolté def marche ñooñu bu leen leen dóor bu leen leen dóor su ngeen leen dóor grenade lacrymogène du ñàkk ñoom it ñu fayu parce que man ko yóorul fayu rek laa sama xam-xam lool nga fekk ma fi dóor ma fayu kon nag nekku leen ci buy di dóor nit ñi da fi nekk pour le maintien de l'ordre c'est pas la même chose alors man xale yi gën a attaqué ma jeune bu ñu leen koy sànni da ngeen yéen da ngeen di daw bu ñu leen kii may naan naan mi ngi fii di la sànni bul daw parce que am na karu loo solo solo mu envoyé la ko da ngay ñëw nga xam ci wetam su ko defee dañuy gën gën a parce que yéen da ngay fa bokk noo yëg ko te boo ñëwee gàllam nga xam ne kii daf la bëgg a sànni nga naan lakk loolu nga jàpp ci masque bi xëcc loolu mooy moyen d'avance waaye bu ñu leen di sànni nga naan lakk loolu ngeen daw boo leen ko defati bu leen ko defati waaw léegi nag ci li nga xam ne nii moom laa leen di ji yéen ñi la mën a ñu jël benn carte d'électeur yi ñu leen distribué carte fraude la c'est pour la fraude kon nag boo gisee fraude ngeen boole ko yëpp teg ko ci place lakk ko comme ça kenn du ko utilisé parce que xar sa papa ak sa yaay am na sa carte carte fraude maman jox na sa carte carte fraude mais tuuti ci achevé na ñaata pour ñaata ci kan yéen da ngeen bëgg ma reconstruire Sénégal mu nekk réew mu moderne kon te nag li ma dafa yomb bu ñu leen di sauvé ay carte fraude ngeen lakk ko bëgguma benn carte ñu di ko mu des bureau de vote yi bureau de vote euh, électorale mais kooku itam liste fraude la su ko defee yéen zone yi dama bëgg à partir du samedi samedi mooy samedi gannaaw la dama bëgg ngeen dem ci bureau yi foofu la ñuy bulletin yi ci ñuy war a wote bu leen lakk bu leen lakk foofu da ngeen da ngeen koy jël génne ko tuur ci essence taal ko leer na de leer na su ko defee ñu war a defaat yeneen élection ñu def ko nag normalement ku gagné rek man man man lu ma lay dimbale yow soo gagné na nga tudd Khalifa Sall na nga tudd Karim Wade na nga tudd Pierre Goudiaby wala leneen boo gagné normalement mën naa la dimbali dinaa indi si Sénégal xaalis boo xam ne kenn mësu ko gis parce loolu mooy sama métier ah ci li may terminer rek mooy programme ngeen bëggoon man de waxaluma kenn nag sama bopp laa waxal yéen ma demandé ma conseil leen nu mën a jënd ci guuta guuta gi nu Macky Sall Macky Sall kon ñu def leen li mën a nof rek euh, dinaa rencontré nag leader yi am na ñoo xam ne ñëw nañu Paris saint ba ñu waxtaan ak man danoo d'accord ñu si doon naa leen gis fii ñoom itam ñu bañ a suufee beneen boobu bañ a nax seen bopp bañ a dem ci loo xam yow xam nga ni dañu daan loolu xam ne pour lu ñu lañuy sa bopp benn ka Sonko Sonko nga xam ni man dama ko estimé jàmbaar la et c'est un bon Sénégalais. man ma ne ko bilaay bi wax mi ngi fii ma ne ko bilaay bi naam ma ne ko ñun Sonko suñu ñëw bii Macky Sall jàpp ma waxoon naa ko jiw boobu du ko am parce que assemblée nationale enquête benn formule bi Macky Sall Macky Macky nag moom laa bëgg waxtaanal xam nga ni li ngay defar bu élection na nga dellu gën ñu ne kon alal raw bu bees day élection waaye lii ngay def yàlla ma koy xam ne du élection léegi nag boo demulee ñaar bu ñu fay kii daan kii kii daan moom mooy waaye ki nga xam ne dañu ko ñu kët ma sa ko teg ci suuf amul dara mu wax loolu la ñu naan a jumeñ ko su ko defee Macky boo demee may nu jàmm ah dund la tëj ci kaso waaye nag da ngay indi xaalis bi nga sàcc yëpp loolu du bonne volonté danañu la juger parce que ñu juger la waaye man de bu ñu ma demandé conseil dama naan bu leen ko tëj parce que tëj bi am amul benn la euh, àtte léegi boo jëlee suñu xaalis bi nga ne nga bëgg a bëri ah bisimilah nañu pour pour réew mi dama leen ne yéen PADS dama leen waxoon ni si pouvoir mais pouvoir baa ngi jël leen ko jeex na jël leen ko li nga xamoon ni décision rek. kenn xamul Macky Sall ay grande vitesse. alors kenn xamul donc occasion ngi nii. lii nga nii li ma leen def mooy bu leen ñu yàqal occasion génne fi Macky Sall di dem ci élection yi yoo xam ni xam ngeen ni day fal boppam ku ca dem nag ba ñu ñu ne Macky falu bul ñëw mukk naan ma Sadio ne bii gënoon bii nanga ma naan du ma la sax parce que loolu xamoon nga ko xam nga xam foo jëm waaye doo ñëw ci ñun ñun di la accepté ci suñu kuréel li daal moo li ma gën am solo li décision décision nag dafa baax man de maay général bi ngeen xam ne moom ngeen gisal ma ne laaj defaleen ma ko loolu ma ko defaleen naa ci dem liggéey Sénégal maa ngi leen di